maaleykum wa rahmatulah yéen ñi ñu nekk am ndox la moo xam ne nii fii ci Touba dafa am benn foo xam ne ko fa parqué di ko defar di ko solaat ci ay mbuus di ko fa yéene dugal ci dëkk bi pour mos koo jaay kon ñu gën a bàyyi xel ci ndox yi nga xam la ñu naan rawatina ndoxu sarsa ndox yi nga xam ne moom la naan ndox mi nag am na benn tur buñ koy woowee waaw ndox bi ñu ngi ko daatantale sarsaara sarsaara sëñ Mor waaw gis ngeen ndox mi ndox mi environnement bi mu nekk rek moo njëkk a doy waar gis ngeen fu doy fi nga xam ne fi lañ ko teg ci ay ton la yoo xam ne nii fii gis ngeen li nga xam ne moo ko wër ay mbalit la ñu teg ko fii rawatina fii yenn image yi yéen a ko gisal seen bopp gis ngeen ndox mi fi ñu ko parqué fas yéene koo dugal ci li nga xam moo di marché bi lii nag noo commenté la noo comme ni ñu ko waxee gis ngeen ndox mi mbuus yi boo xoolee xam ne fii am na fi ay ñetti at yoo xam ne ni ndox mi dafa dem mbuus yi nekk dafa commencé di xomaag lii moom yéen ko gisal seen bopp kenn ker yow ko mu ngi nii ay ndox la yoo xam ay ton ay ton la ci ton yoo xam muy fii ci biir dëkk bu sell di Touba nag eh, jamono ji service d'hygiène ñëw nañ fi ba yam ci ñu leen wax leen ko gis ngeen mi eh, li nga xam ne moom lañ koy def mbuus yi bu xomaagee nii ba pare gis ngeen mbuus yi ni mu xomaagee gis ngeen yéen a ngi koy gis nii gars yi ñu dem ma wan leen foo xam ne duñ ko defaree ba pare léegi nii lay mel gis ngeen ton yi gis ngeen ko defaree ba pare ba ngi nii léegi nag gis ngeen euh, buñ ko defaree ba pare ci yeneen mbuus lañ ko def mu ngi nii ay mbuus yeneen mbuus lañ sensé mbuus yi boo gisee mbuus yu mucc ayib yoo xamante ni dañ ko ci daa def ba nga xamante ni boo gisee da ngay yaakaar ne euh, mbuus yu baax la da jàpp na ndox la moo xam ne nii ndox mu baax la gis ngeen ko mu ngi nii nee nañ euh, mu ngi nii waaw gis ngeen mu ngi nii instant bi nii la mel buñ ko defaraatee ba pare defaat ko ci yeneen mbuus nii la mel fii lañ toog di ko defaraat di ko solaat nag gis ngeen lii nag gars yi fan la ñuy nag te nee nañ ñu ngi ciy tudd benn kilifa boo xam ne ni aw sant bu mag la yor fii ci dëkk bi gis ngeen bi ñu ko defaree par mbuus imperméable lii la ñuy jël solaat ko ci yeneen a gis yéen a gis yéen a gis mbuusu xomaag yi fii lañ koy jëlee buñ ko jëlee buñ paree defar ko fii